salaam chers amis internautes de retour le retour de Femme Noire fii ci yoonu Ndam TV maa leen di bëggee di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay comme ni ma ko baaxoo defee di ñëwaat fi nga xamante ne fii tey mooy Kër Massar ñëw seet si nga xamante ne kii moom la ñuy wax Zoya Glam ñeneen ñi di ko woowee xuri yéen a ma gën a naw ay ci ma fekk si ko fii tey nag ngir waxtaan ak moom tey nag nee naa leen seen émission bi nga xamante ne mooy déambuler pour savoir je vous avais dit que bàyyiwuma kenn dinaa doxantu ngir jéem a xam ci ku ne ci looy yëngu ak ci lu mu mënti doon ñëw nag tey fii maa ngi Kër Massar ñëw seet si wax waxtaan moom xam ci li muy yëngu ak lan moo di inspiration bi nii parce que tamit li ñuy wax ne rek jigéen bari na te wute ah jigéen ñëpp nekk ay jàmbaar comme ni ñu koy waxee ñi ne ci marché yi ñi ne ci tool yi ñi ne ci salon yi c'est comme ñi ci école yi ah. kon loolooy mu wane ne toogaay dafa jeex ci àdduna loolu lay gën a wax ci xale jigéen mooy toogaay dafa jeex ci àdduna pour loolu nag damay dugg daal di xuus fekk si nga mooy Zoya ci biir ñu waxtaane ko su ko defee effet daal di gën a neex ay ayca salaam salaam sama gaay yi ma leen di bëggee di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay wax waxaat du bëri wax wax ju eggul la comme nuyoo woon naa ci biir te dugg naa ba ci ci biti dugg naa ba ci biir fekk si nga xamante ne kii mooy Zoya Glam nee naa leen ñeneen ñi di ko woowee xuri yéen a ma gën a naw ayca ma fekk si ko fi nga xamante ne fi nag tey mooy ma saar fi muy liggéeyee

classe laal noirceur de benn bu amul fen indi ci robam bu classe boo xamante ne bii rek chatatatat man ñi xees yërëm naa leen daal ma tay tendance leen ay ca xuri balaa may sori dama lay jox nga daan nuyoo Zoya Glam maa ngi lay bàyyi nga nuyu askan wi lay seetaan à travers yoonu Ndam TV alors euh, femme noire maa ngi lay delloo nuyoo bi mhm. di nuyu sa équipe yëpp macha allah di nuyu euh, ñi ñuy seetaan di nuyu képp ku jot ci vidéo bi macha allah maa leen di nuyu yéen ñëpp di leen naan di leen naan dalal ak jàmm ci Joya Glam euh, may PDG bi ànd ko samay xale macha allah di leen nuyu yéen ñëpp. ay ca kontaan nañ ci nuyo bi Zoya ni la nuyoo gis ngeen ko nee naa leen fi mu ne nii ak fi réew mi toll <laughs> sama gars yi mbaa xam ngeen ne waar mooy bomb ah, <laughs> certain ah, loolu am na de ah ñaw yéen ñi xees yërëm naa leen ñi xees li gën a garaaw mooy fi mu ne amatuñu santé ndax seen mélanine jeex na li maa tey wax ko lii dégg nga loolu mm. ay ca <laughs> ñu fekk si fi nga xamante ne fii tey nag mooy Kër Massar ci yoonu Case des Tout-Petits ba ah ñu bëgg a xam kan mooy Zoya Glam ak jàng na école ak fan la jàngee loolu lañ bëgg a xam pour l'instant eh, kan mooy Zoya Glam mm. man Khouriya Gaye mooy sama vrai nom ñoo ngi may dàkkantale Coya Euh, jàng naa nag jàng naa ba am sama bag mhm. ba def ay euh, ay formation en marketing euh, dem naa université yàgguma fa nag waaye dem naa mhm. après nag lama ma passion bi dugg ma nekk ci di di di kii di daw di dàkke mhm. ba macha allah commencé si néeg ba léegi bi mooy sama première place bi nga xam ni mi ngi ci fii suñu kër Eh, kaas ba fii laa nekk mm-hmm. kookoy Joya ak Lam benn ndaw la rek benn xale bu jigéen bëri dugg-dugg mm-hmm. di dugg ci lépp di je ne suis pas maquilleuse seulement yoruma salon kese j'ai des yeneen business yoo xam ne maa ngi ci macha allah maa ngi ci lépp daal ay mm-hmm. ca tungu ne teew mi nataal nee nañ li ma wax rek nit balaa nga koo xam danga ko fekk fa mu dëkk wala nga fekk ko fa muy liggéeyee dégg ngeen Zoya li wax nee na jàng na ba am bagam kon yéen aussi yéen xale jigéen ñi nga xamante ne yéen ngi toll ci jàng mbaa doo dem jàng dem leen jàng concentré wu seen jàng te xam ne tamit fi mu ne nii jàng ba am say këyit terewulaa am sa métier Zoya daa mel noonu nga doxee ah mooy jàng ba yor say lijaasa terewul nga ne sa métier la moo indi inspiration make up si yow. Eh, maquillage bi nag man dama yàgg sob bëgg ay defaru ay lii. série S laa doon def mais su ma daan ñëw dañ may laaj ba xam premier jour je me rappelle bi ma euh, école bi ma amee sama bac dama ñëw juwaat les classes yi dem el toog léegi ñu def ñu def cours ba ci yàgg affaire yomb ci man mm-hmm. ma ne leen yéen fan la ba bii ban série la ñu ne ma L la mm-hmm. ma ne man nekkuma fii de S ñu ne ma yow nooy def ba def es yow yaa ngi solu defaru ñëw ah, alors que élève bu S ñoo ngi koy xamee euh, kii xaw du xaw a bëgg boppam daal mm-hmm. ma ne pourtant S def sama waa classe si boppam ñu toog ñu naan ma yow élève L nga gën a élève L nga gën a nirool damaa bëgg ay dugg-dugg mm-hmm. mais teewul yàqul woon dara sama jàng maa ngi doon jàng ba ma amee bag nag euh, vu que université temps bi ngay toog pour université tijji mhm. si nouvelle bachelière mhm. day yàgg ni ma daan tëju nag je ma casanière dew ma fenn dew ma lif maa ngi si kër gi di defaru di vidéo di kii mhm. noonu am ñu ma gis ñu naan ki damay dangay ñëw dañuy ñëw ma maquiller leen noonu may maquiller par benn nit kooku dem indi xaritam ni xaritam boobu indi keneen ba noonu ma jël nag commencé jël sama chambre def ko salon bi Mm. su ma xëyee yëkkati matelas bi. sa néeg daal sama maanaam salon bi sa biir néeg nga ko commencé. waaw sama biir néeg laa commencé. su ma xëyee damay euh, génnee matelas bi. Mm-hmm. damaa dem ba suñu saal si boppam damaa jël fauteuil yi jël télé bi jël lépp dugal ko ci néeg bi di di di di jël lépp saa yu ma xëyee rek jël sama matelas yóbbu saal bi jël saal ba indi ko néeg ba. Mm. def ko salon nag. <laughs> waaw noonu laa li ma bëgg xam mooy kon su ma déggee nga wax ni lii don la don mooy jàngoo ko fenn daal lu yàlla def ci yow nii rek. non jànguma ko fenn nag jànguma ko fenn. Hmm. sob rek topp vidéo yi loo gis bëgg ko essayé su ma xoolee nit di xool kii crayon bi fii la waroon jaar fii lay jaar di si toppaat noon noon daal mais jànguma ko fenn def ma benn formation. parce que dama gis ngay def ay différents maquillage ma gis ne da ngay def ay maquillage yu artistique gis naa nga jël kanamu nit liggéey ci ba mu jox la gaynde ma gis nga jël kanamu nit liggéey ci ba mu jox la ay yeneen affaire ay yu kenn xamul daal <laughs> Joya loolu la lan la loolu. Euh, n'est pas c'est pas qui euh, fréquent fi Sénégal mais maquillage artistique. suma madame daan maquillage bizarre, maquillage beauté nekku won sama rêve dama daan xol nan li de bëgg def mhm. man euh, contacter ay école dañ koy mhm. contacter am cher mhm. formation day cher trop ma ma ne xaaral. ma commencé jël ay effet su ma jëlee lii boole lii mu jox ma effet bii. Mhm. affaire yooyu léegi man nag pourquoi pas mën naa ko def may essayer di def par benn benn di comprendre technique bi. di def di def ba nii macha allah ba ci di former waate macha allah. kon yaa ngi forme waate nii daal. <laughs> waa maa ngi formé ñi fi nekk nii. Mhm. ba ñuy ñëw mënuñu woon sax tey crayon léegi waxuma maquillage beauté mais maquillage artistique dañ koy def clip bi dañ fay dem. euh, cérémonie tout ce qui est en art mhm. lié à la mhm. genre lu ñu mënti soxla maquillage artistique clip vidéo euh, série yi yëpp ñoo ngi si dem. maa ngi doon bëgg ñëw foofu parce que dama gis ne da ngay def maquillage artistique yu doy waar est-ce que gars yi na ci série bi ñu ngi jéem a découvrir kan mooy Zoya Glam ak maquillage bi ngay def je vois que ñoom daf leen di intéressé est que yow yaa ngi dem envers ñoom wala link bi nga war a am ci seen biir est-ce que yaa ngi ko fay am. Eh, ci loolu je me rappelle ba may soog a commencé maquillage artistique ba ma defee benn ñaar ñet mhm. am naa ñu ma contacté woon dama leen message woon di leen wax ba xam ils sont intéressés aw ma ci retour ndeysaan eh, lu yàggul benn artiste bu mag message ma alors ko kooku ba may commencé yaa de cela deux trois ans message naa ko mais ba tey aw ma retour ma jeg saay bu ma gisee message dama tiit eh, bëriwul nag mais ndànk-ndànk ils vont vers moi parce que man yéen ñoom soo leen jegesee day metti man damaa dem jegesi leen mu metti léegi nag maa ngi sama coin di def li ñuy wax rek nekkal si rukk di liggéey liggéey bi si boppam dina fësal boppam dina publicité boppam ay lii la ñuy wax ne ku ñaan ñàkk ku ne soo jëndee am kon sama wax nga day daal di ñëwaat ñu bàyyi nekk ci kaw bañ a tàllal loxo ñu ci suuf des fois ki ci suuf mën na laa ëpp niveau ki ci suuf nga xaw koo newal mën na laa am loo xam ne yow nekkul ci yow caméra la ah télé yi jël la série jël la terewul yow nga nit ki toog kirukam am inspiration boo amul kon dèjà dangaa jàngalewaat mooy ba nga nekkee ci yoon di soxla gars yi ñoom danoo dawoon au retour ñoom ñoo la soxla mais man fi nga ko jàpp ni bëgg naa ko bëgg naa sa jikko man lii sem barke Serigne Touba Mbacke xuri yow xam nga ne man ma laa bëgg ndax xam yow <laughs> ay ca sama gars ma gis nag comme ni ma koy wax dama ciy insté waat ci différent maquillage yi ngay def en même temps yaa ngi am ay effets yooyu defaale yoo xamante ne ah genre ay collier ay ëppukaay ay effets yooyu loolu aussi danga kaa jàng wala lan la. jànguma dara li ma jàng yëpp tariwuma ko yeneen yi nga xam ne jànguma ko woon bien vrai que yi a jàngoon comme ay marketing ay yooyu ñoo ngi may aider parce que maa ngi xool nu may améliorer sama communication. Mhm. mais yi ma jàngul yi ma yi ma nekk nii di liggéey yëpp jànguma ko comme aar yi exposé naa biennale bi passé il y a de cela deux ans exposé naa. Ah. bien sûr ba <laughs> exposé naa ay tableau en même temps maa ci defar seetu yi nga gis fii ci salon bi ñoo koy defar aussi. décoration bi ma gis si salon bi yéen a koy def. waaw ñooy def décoration bi ay yo ay salon sax dañuy contacter pour ñëw décorer ko seen salon ñii boutique ça dépend ñii maison ñoo ngi ci lépp <laughs> maa ngi ci lépp. ok loolu neex na man xuri dinaa ñëw nga jàngal ma ndax di la laa war a jàng décoration la war a jàng wala maquillage atala <laughs> li may def nii ma boole si jàng maquillage wala ma jàng décoration. li nga lii fi nga nekk nii fi nga nekk nii yaa nga fa yaa ngi sa biir. Aïcha ma gis aussi ngay def maquillage bi di rafet loolu ma gis ne fii tableau yi ma fa gis yëpp ay teint noir laa fa gis foo moo insisté si loolu est-ce que ñu xees ñi ñu ngi jox bopp ku ñuul ki pour mu war ko mën a maquiller ngir fóon ne bu ko maquiller dina am li mu bëgg wala. Euh, contraire bi mooy difficile parce que. Mhm. d'habitude maquillage nit ñi dañ naan maquillage xees moo gën a yomb. ok parce que amuñu habitude di maquiller teint noir parce que teint noir déjà ñun suñu suñu teinte ay fond de teint ay yoy yo xamné teint noir la mhm. ba mu génnee yagul ma kii marketing euh, te sa maquillage marque maquillage yëpp cosmétique yëpp ku blanc bi la doon jital. ndax ñom dañoo ay tubab lañ mhm. mais contraire bi moo metti nag maquillage mais man je me dis que mhm. man sama côté maquillage teint noir laay gën a nekkee à l'aise parce que j'ai l'habitude li metti si nit ñi man man naa ne moo yomb si man maquillage teint noir maquillé la ba nga xam ne du du changer sa teint sa teint ni nga ni nga ñëwee noonu ngay demaatee dina am nag changement ndax loolu si loolu lañ si wut mm. mais maki man maquillage teint noir mooy gën a yomb si man parce que damay gis nit ko xam ne dafa ñuul ko ko ñu maquillé ko xaw ko indil teint marron wala effet yooyu est-ce que yow loolu dalay dal wala euh, non li may dal nag du bëriwut mm-hmm. su ma dalee sax dinaa ko rectifier avant ngay génn salon bi su ko xale yi defee ma xam ni lii nii tent bi baaxul dinaa ko rectifier avant ngay génn salon bi dinaa ko rectifier dinaa woo ñoom suñu maquillé ba pare man damay ñëw superviser bien vrai que mën nañ macha allah mais manu ñàkk ndax erreur du ñàkk man sax damay def erreur parfois damay nekk si comme maquillage artiste ma def ba si yàgg woo leen ñoom ñu xool mhm. ba xam li ma def baax na man ndax man li ma gisee sama bopp ñoom ñooy gën a am vue si man que man sam bopp moo tax à chaque fois erreur mën ta ñàkk mais mhm. ñoo ngi def lu tout ba nga xam ni du bëri mhm. wala ñoo ngi koy wàññi daal maquillage bi ma gis ne des fois borom salon yi dañuy def ay déplacement est-ce que yow farataal nga di dem déplacé wu envers nit ñi di leen wala yow ñoom ñu ñëw envers moom moo lay gënal euh, man nag déplacement moo ma gënal déplacement moo ma gënal parce que ah. déplacement moo gënal ko parce que moo gën a am comme ni ñuy wax en même temps aussi euh, fi nga nekk duñ la xam la plupart ñeneen ñoo lay xam te man su ma tollee fii réseaux sociaux moo ma ko def ñoom ñoo may contacter ba ma nekkee di jàng ba may uni naan la yàgguma université. Mm-hmm. parce que dama daan tàggoo université sax gàddu sama maletu maquillage dem kon ñoom à chaque fois ñoo tax lii am. maanaam tàggoo université de maquillé ji. waaw looloo yàgg naa koo def. yow maquillage mënu la woon ñàkk fay. <laughs> yàgg naa ko def nag moom tàggoo école. Mhm. jël sama saak mu jënteem nag ba nga xamee ni saak bi bagage yi ñuy voyager à chaque fois sam pap su ma daan génn danaan ma yaa ngi mel ni ku jëm Europe. Mhm. après nag ba mu nangoo noonu laay soog a jël valise bi mais début bi. ma euh, maquillage bi si saag bi la nekkoon. Mhm. kon yow dem envers quelqu'un wala quelqu'une dem maquiller ko moo la gënal ñoom ñu ñëw fekk si. moo ma moo gën a oyof si man. lan moo tax nga taamu loolu. Euh, comme je te dis euh, boobu lañuy ñuy gën a xam sa gëdd. Mhm. parce que koo dem fekk si la. dina am nag ay aléas mënta ñàkk mais koo dem fekk ko dina kooku déjà xam na sa gëdd moo tax mu woo la mhm. xam na yow li ngay def xam na la ba pare moo tax mu woo la nga ñëw mhm. kooku euh, lii na la ba pare deuxièmement aussi euh, fii euh, Kër Massar mhm. ñoo ngi ci c'est vrai mais demee wut noonu léegi nag dem bee ñëw bi mooy tax nga am benn ressource benn source de revenu. parce que damay dégg gars yi ne liggéey biir banlieue dafa metti est-ce que loolu dëgg la. dafa metti dafa metti da ngay ñëw da ngay jënd sa benn fond de teint boo xam ne trente mille la. am ku ñëw ne la maquillage mille francs dafa metti xool te. moo tax parfois yow yaay xool yow yaay jéem a tolloo ñoom yaay xool sa prix ba nga xam ni ñoom duñ si gaañu mm-hmm. yow doo si gaañu mais tey li maquillage bi ngay defee fii dix mille francs ou cinq mille francs mm-hmm. soo nekkoon yaa ngi ci euh, euh, yaa ngi euh, ci ville bi mm-hmm. mooy gën a di nga ko mën a defee foofu vingt mille pourquoi pas quinze mille bu ci gën a yomb alors que fii doo ko mën kon liggéey banlieue dafa xaw a metti daal. ii dafa metti dafa metti neex na waaye dafa metti neex na waaye dafa metti mhm, nan ngay dundee week-end yi parce que dama gis ne des fois comme ni ñu koy waxee yeneen milieu yi damay gis week-end yeneen salon yi dañuy xat est-ce que yow loolu mu ngi lay dal. Euh, damay dal des fois damay dal damay dal parce que ñun weekend bi lañ am ñun li ñuy liggéey liggéeyu euh, liggéeyu weekend la soo gisee dama wàññi sama kii vue que émission baax yooyu yooyu laa sóoraale mais ñun suñ liggéey liggéey liggéey weekend la moo tax ñun ñi suñu jël dimanche ñun lundi la ñuy jël ñun suñ liggéey moom liggéey liggéey weekend la ma gis anytime am nag te yow yaa ngi def ay ay ay nu ma ko mën a waxee sax maquillage artistique ah. defar ay ëppukaay ay effet yooyu est-ce que mën nañ ñoo jox ëppukaay yi ñu wane ko gars yi xoolaale xam ne mooy loolu ak ak ak anytime bi nan yow noo koy dundee fi mu toll nii ak anytime fi mu toll nii. Ah, anytime moom est-ce que yow yaa ngi sabab ci anytime bi. Eh, ins bi moom wàññi nañ ndax début bi. Mhm. moo gënoon a moo gën a am engouement eh, éventail vaccin mais ins bi. Mhm. dañoo ndax début bi ñoo ngi doon xool eh, anytime bu xaw xumbu mais es bi moom airtime chic lañ laal. Ah. genre yii nii nga laal ko def nii. jaay wane sa bopp. te mm-hmm, la demee. mais est li cher na. non cherul nag. c'est moins cher. def prix banlieue rek du cher moom. dégg nga prix banlieue prix banlieue mooy lan. primal yi mooy oyofal ko mm-hmm. genre soo demee xam nga tey soo demee di jëndi tissu yi mm-hmm. am na bu vingt mille am na trente cinq mille am na cinquante mille soixante da ngay jënd boo xam ni bi gën a mooy cher te rafet aussi mm-hmm. te si la bokk doo gaañ ñi nga nekkal ñi ko soxla dañuy am accessibilité ñëw seew kon aussi dinañ ko delloo lim leen jox parce que mu leen di sóor ba tax peut-être mu leen di sóor daal sama gars yi comme ni ñu ko waxee rawatina ñun waa banlieue banlieue xam ne nekk salon de liggéey aussi yombul dossier am donte ci rukkam la toog jàng ko tamit neexul ah neexul nañuy génne di fay prix make up di génne di fay prix maquillage di jënd ci ëppukaay yi parce que sama genre yi gis fu ñu toog dañuy transpirer parce que ñun yàllaa ñu dëgg neexul ah dañoo war laal ci ëppukaay sama muñ demu intemsement laal sa ëppukaay boo demee toog foo xamante ne fii mooy loolu nga daal koy jif-jifal dégg jàmm Aïcha ba tey bu leen fàtte si nga xamante ne kii mooy Zoya Glam man may insisté ko xuri parce que Papa Faye xuri la ma wax ne xuri la tudd collier ari yooyu defar aussi collier yi sànq dugg ci mais insisté ci collier yi. Euh, collier aar mm-hmm. euh, man déjà damay defar ay euh, d'art comme je te dis. Mm-hmm. les colliers d'art yi nag commandé vu que Inspire time. Mm-hmm. solu nigérien la ñuy solu affaire bien vrai que ñoo def ay des yooyu mais bëriwul collier nigérien yi gën di utiliser aussi pour shooting yi dañuy utiliser couronne et qui te xam nga rek business bi foo nga xool li nga xam ni c'est demandé nga jéem koo def. pour génn si waaw kay noonu la demee. loolu moo waral collier yi mm. mhm. mais collier est-ce que cher na moom aussi cher na wala yomb na. man sama dara cherul. dégg nga lii cherul de. xam naa prix banlieue ko defaat. waaw kay yii noonu la demee nag <laughs> yàq naan <laughs> prix banlieue lañ ko def xam ni du kenn du gaañu. Mhm. te dinañ lañu solo mu rafet. Mhm. suñ paree denc wala ñu ñu jaayaat ñoom ñooy xool rek. bëgg naa xam lan mooy ay projet Zoya. projet il lan projet yi vu que inspi formation yi xale maquillage maquillage maquillage bëgg maquillage maquillage artistique aussi ça se développe euh, clibiyaax yooyu mhm. léegi inspi formation bi la ñu gën taxawal xale yi gën a ñëw ñu gën a formé wu léegi nag ñoo ngi si yeneen projet ay défilé ay shooting yoo xam série de shooting yoo xam ni incha allah mi ngi ñëw euh, xaar leen ñu daal ñoo ngi ci lépp mhm. mën nañ wax ne mën nañ xaar Joya ci lépp ah, man li may wax xale yi rek mhm. jaayum xeesal laa dul def ak jaayàpp mais lii loo leen gis rek mën a jaayum lan jaayum lan ñëwaatal ci loolu <laughs> Zaya loolu def nga ne. bañu ma dara lu dul jaay xeesal ah ah kii daal bañ daal. ak jaay yàpp waaw ci ñàkk a jaay yàpp. waaw kay surtout loolu. dégg nga loolu. <laughs> nee na jaayul xeesal jambul jaayul. dafa leer ta jaayul ndawal tamit sama gars yi dégg ngeen ko bu baax jambul jaayul te jaayul yàpp dafa leer ay ca waaw Zoya vraiment kontaan dama doon bégan ah di kontaan ci fekk si ko fi mu ne nee nañ chaque jour nit ki boo ko fekk siwul aussi mënoo xam ci moom dara parce que li ñuy wax soo yëree da ngay gis soo dégloo da ngay dégg mais boo xuusee ba ci biir ci ngay xam Zoya bëgg naa xam li ñuy wax ne sa biir ne nga jàngee ba tey nga taxawal ko ci magasin bi ci fii nii ah, mm-hmm. ci ci salon bi du moins est-ce que école yaa ngi yaa ngi xalaat tey fan nga yaa ngi def teg sa bët ci war naa mën a dem indi ji école waaw wala déet plus yaa ngi taxaw ci def formation kon école ak chimie damay bëgg yaa ma gën a noonu. waa kay comme je te dis formation yi xale yi bëgg nañ ko. Mm. xale yi bëgg nañ former bëgg nañ am ku nekk métier parce que xaalis nekk na mais métier ko gën. Mm. ndax métier soo rukk foo mënti nekk di mm. sama yaay wax benn jour. mu ne ma wërsëg foo mënti nekk maquillage biir pale mm. dinañ la def lu tout ba fekk la fa mooy ba may digal ci ba may conseil ci wàllum euh, maquillage ba ma naan maquillage biir nekkee tout mm. li may wax rek euh, moo tax xale yi ñoom ñëpp ñoo ngi bëgg métier parce que tay mhm. ñii ñoo am projet de mariage ni projet de voyage mhm. tay fo meunti nek sous la sous su la sa jëkkër defaral sous la góor defaral man nga mënal sa bop ak sa métier motax tax ñoo focus sur formation bi mhm. école mag mi ngi en cours inshallah. parce que école pour que ça soit reconnu il y a des procédures à suivre léegi lool nak ci lañu nek motax mais eh, école bi moom ñoo ngi ci bu baax a baax a baax. Mhm. kon yàlla na si yàlla teg loxo. ma gis àppalu gis dugg naa ci salon bi gis fi ay ay ay parfum ay affaire mu bëgg xam ne dañ ci boole wala business waa wala de business ci parfum yi wala nu mu demee noonu. non xam man moom entrepreneur la je suis une jeune entrepreneuse yoo xam boo xam ni mhm. genre man tout ce que je vois damay xool nan lay juree damay gis tissu nii xool lan laa ci mën a créer ba ba mu amal ma dara parfois ni yàgg naa dox di fortaatu dara ci mbed bi pour su ma ñëwee ma créé ci fauteuil pneu et tout hmm. moo tax nag <laughs> waa lépp maa ngi ci. mais sa robe bi nga def nii baa xam nga ne daa am. ah sama sama tailleur baa fa jaar Pape Faye maa ngi koy nuyu Colobane. Faye Biram Penda Waaga. ak ah, kii moo jox bii. ne émission woon. Pape xanaa su paree ci yow dafay laal ci man ci robe bi dafa am de. bien sûr day ñëw. wala bilaa jël yóbbu ko. Ah, waaw waaw loolu tamit mën naa nekk. non du ma ko laal loolu day neex ba ëpp. <laughs> loolu tamit mën naa nekk. ayca ma gis fi ay perruque ah perruque yi yaa ma gën a naw da ngay jaayaale ay perruque wala nu mu demee noonu. waaw salon ak euh, genre produit esthétique ñoo ànd. Mm-hmm. salon ak produit esthétique ñoo ànd. Mm-hmm. perruque yi day jaay parfum yi day jaay fond de teint yi day jaay mm-hmm. tout ce qui est beauté soo ñu ko laajee incha allah rapide dinañ ci. ah fond da koy jaayaale. waaw tout ce euh, yoo xam dañ koy. da nga xaw a cosmétique bi daal. waa kii yi xam mënta parce que salon lay wax nit da ngay day ñëw euh, nga utiliser dara mu ne la lii lan la lii bëgg naa ko lii jàpp na ma lii sama poudre la lii sama fond de la moo tax ñu teg fi benn stock boo xam ne ay échantillon la xam ni nit su bëggee rek euh, suñ ko laalalee dara mu ne lii bëgg naa ko ñu ne ko mi ngi fi pourquoi pas nga am ko mhm. Mhm. est ce que Joya Glam aussi ku am ak ku ñàkk mhm. ñi nga xamante ne des fois dañuy gis Joya bëgg a moom mhm. bëgg jot ci moom mënuñ cee jot fekk du ñàkk mën cee jot ngir seen i jëmm mais doolee jot ci ñoom moom ci ci noonu lay dépendre ba duñ mën a jot ci moom mhm. est ngay defante ak moom tey nit mën na gis benn femme noire mën na ñoo gis benn gis mu defar mu estimer ko ci li muy def te yorul cent franc ñoo bëgg pour mu defar ko est ce que Joya dina dimbale ñooñu euh, ba sama néeg laa commencé yàgg naa maquillage te merci laa ci am waaye merci bi merci bobu sedd na xol. yàgg naa maquillage nit yàlla xam na ko te un franc du ma ko jox. kon loolu du doon problème samay cliente xam nañ ko nit day ñëw sax du ma jox dara soo taxawee fenn ne yaa ma kii man ko kooku fay na ma ay million ci maquillage boobu rek. nit sagam la am te ñun genre ñun jigéen li mooy suñ de sag defaru suñ ñàkkee sax amul problème. Mhm. mais nañu defaru sagal suñ bopp sol sol ba ku ñu gis ñeeñu ñun loolu lañ xam moo tax mënta ñàkk nag. loolu moo mënta ñàkk wax nga ci lu am solo mooy liggéey rek a wóor comme ni mu ko waxee mais Zoya est-ce que yow da ngaa marié waa mën nga ma faa ñamal tuuti wala. célibataire laa nag. xale bi xanaa dañoo gumba. yii mbaay damaa nekk si ay projet. Ah. am tey mais pourquoi jigéen ñi di bëgg ne damaa ne ci projet duma am jëkkër loola la. am nga tey jii nii. Mhm. am nga gàddu ko ñun bàyyi ba ñu am gàddu ko. si kàttanu yàlla koo xam dinañ topp <laughs> amul problème <laughs> na dañ la naan kaay toog du si la bàyyi woon nga dem sax nga ànd ak amul problème mm-hmm. xam ni mm-hmm. tey maquillage mën ngay guddee une heure lii fekkoon na ngay ànd ak moom amul problème waaye dañ lay woo foo nekk waa ñibisil xale bii bàyyi fii ñu toog mais mais est ce que yow tey su la yàlla mayoon góor boo xamante ne am ngeen complicité wu mu nangul la sa liggéey bàyyi la nga liggéey liggéey bi bu la ci soutenir nag xam nga soutenir tey nekkul yëkkati sa ci poche am jox la mm. wala nangam nangam donte su ko mënee def ko neex na mais mu may la liberté wu nga liggéey ba xamante ne kenn du la xamal ndax buñ la ñàkkee xamal ñàkk koo xamal boo amee di nga sëy wala doo sëy maa ngi focus xaalis. diñeeru yow daal moom nga focus fi ne nii diñeeru. diñeeru rek laay topp waaw damay tëdd ko gént. léegi mari daal. Marie mënta ñàkk mais après daal. d'ici combien d'années d'ici deux mois trois mois wala un an. lool si année la noonu. bàyyi ma foofu rek waaye si kanam li kanam xaw ni <laughs> waaye topp di bi rek focus. ah focus waaw bàyyi ñu focus ba tuuti rek tuuti tuuti rek. Mhm. incha allah. Aïcha ñu gis ne comme sànq ni nga ko waxee da ngay créer ah yow da ngay créer da ngay innover macha allah est-ce que mën nañ la xaar aussi ci un jour ñu ñëw fekk la foo xamante ne fii danga fa faa créer comme comme tailleur war a mën a nekk tailleur di créer di ñaw comme ni nga waxee ne sànq da ngay dox ba for benn affaire créer ci benn affaire. Eh, mhm. pour loolu noonu <laughs> sama frère bi day toog sa naan ma ñaata métier nga def naa fi défilé boo xam ni man maa ñawal euh, modèle yi. Hmm. maa leen kii en même temps man modèle laa woon ndax boobu défilé kii la woon. dégguma li nga wax dañu Bigos of. ah kay aa ah, kay yaa ko laal suñu défilé la woon daal. défilé Bigos of. walaay walaay. dégguma de maanaam yow da ngay xaw a ñawaale daal. lekk naa fi tayër de ci kàttanu yàlla ba léegi sax maa ngi ci yow jox ma modèle rek war nga ne ma lii laa bëgg ma créer la problème non ma maanaam comme tey nga ne kii lii istilam la yow gis nga loolu daal bien sûr nit xam ñun lan mooy suñu problème mooy genre ku ne ku nekk su daan su suy sol lu ko jàpp rek amul problème mais damay mel damay nii mhm. bëgg sol loo xam ne kii lay jot bëgg a jël crop top sol ko waa kii day metti day mhm. metti si man dëgg la nag bëgg naa ko waa kii yaa ko laal bëgg naa ko mais dañoo am ay bourrelet yooyu yëpp dañ koy sóoraal soo waxee ñu ne amuñu complexe c'est vrai dëgg la fii kenn amul complexe juste dañoo ku nekk su doon sol loo xam ni c'est adéquat à kay problème du am mhm. Mhm. dëgg la waa mais ma gis na maquillage artistique bi rek lu ni ngay xoolee kanam rek war cee mën a génnee gaynde c'est que damay bëgg xam nag ndax kooku dafa daf laa xaw a jox style gaynde wala lan la loolal la. non du loolu sax. man man gaynde bi daf maa billaay daf maa touché sans blague nag daf maa touché tellement que gis naa aussi nga def bu segg mais loolu lan la lan la. ah kanamu nit ki nga xool mu xaw laa jox mais kii moo ko joxee daf may jox gaynde wala lan la. yëfu dof rek topp suñuy xalaat xam ñun duñ xalaat xalaatu nit nag. toog suñuy xalaat rek ah. xool nit rek mu ne lii la lii ñu ne ko yow toogal noppi rek di rek ba mu jox benn résultat bi. ah noonu mhm. même gaynde bi noonu nga ko tracé. <laughs> toog suñuy xalaat rek. mais da xool gaynde ak ak ak taaru gaynde nga xool ko ci nit war naa gis ne war naa mën a nekk wala la gaynde bi dama ciy insister de. waaw oh, pourtant xoolal pourtant nag am nañu gis nga tey nit bu nekk soo xoolee am na mala bu mu lay jox dañu koo bëggut rek waaye ñun ñëpp dégguma li nga wax de. <laughs> nit bu nekk tey am na mala boo xam ni war na koo mën a ndiru ñun ñoo bëggul rek waaye looloo am ñu bëgg ko ñu bañ ko ndax noo gisee tey di ko xas ni ko yaa ngi nit ba mu seppal ne ko yaa ngi mel ni golo kon ça di am na lu mu la jox dëgg la ñun nag ñoo ko bëggul moo tax nag ba faatu si ñàkk ñu jël topp suñu xalaat rek nga jox ñu gaynde ñu jox la gaynde rek yàlla baax na. ah kon baax na inspiration gaynde la am de ah Aïcha dafa mel ne li ma amoon ci ay waxtu bareetul li laa amoon doon ko partagé ak ki nga xamante ne kii mooy Zoya Glam ñoo fekk si woon ko fi nga xamante ne fii mooy Kër Massar je pense que li mu fi wax lépp leer na dinañ bitigu mag boo gis magasin moo ne ci xolam ah taxawaalu jeex na fi mu nekk nii jaay yàpp aussi jeex na tàkk nañ waxante dëgg jaay yàpp daa jeex ak ci lu mën donte xorom ngay jënd saako xorom di ko sol mu lay jural cent franc uh-huh. ci ci biir saako bi rek yaa ko moom te nga da nga ciy am ak fierté xëy yenu sa paan jaar nii dem jaayi xorom man moom a gënal téeméeri junni yoon nga dugg si yenn détails yi mm-hmm. Zoya am na lan ngay conseil xale jigéen yi xeesalkat yi lan nga leen di conseillé de un billaay du ay caaxaan maanaam non da ngay tooñ xam nga la moo tax des fois faw nga tooñ leen parce amatuñu santé yaa ngi dégg mélanine mm-hmm. bi doomu aadama di am ci yaramam ñoom amatuñ ko lan nga leen di conseillé ak jeunesse bi nga xamante ne dañoo bëgg a jàpp ni comme ni nga ko waxee bu dee koor ñu ne tëdd xëdd yeewu ndogu xëy defoo dara nekk dépendant de quelqu'un lan ngay wax ñooñu xam nga tey jii ku bëggut a gis ku bëggut a gis dalay meex parce que tey ñu ñuy xool ay meer tey nga taseef ñoom nga gis ni tay sa kanam ni lañ mel loolu rek genre leçon la ñu naan la bul xeesal gënal su koñ bi e, dox sa ak boutique ba di nga gis mère kon si ñu la bul mhm. dañ lay yow si xam nga ko mhm. xam nga genre yow ins bi e, à chaque fois la femme noire mhm. regarde le nom que tu ah, ah tamit femme noire regarde nañ xëy sangu ba set génn tàllal ñu bañ a diw xanaa ñu wooñ nañu weex ngeen waaye kan mooy ñëw nañu ah tamit nag ku ko sañ ah kay waa kay noonu la demee neex laa génne suñu kër ñëw waa noonu la demee ñëw nga naan may am lu ma def nii xaw daal génne samay si def la sax waa gis nga lool léegi nag comme nit ki su choisir jël xaalisam jëndee ko xeesal soo defee lenn saa yooyu saa yooyu euh, dem bay jënd xeesal jëlal loolu def ko ci benn pot def ko quelque temps ndax diw xeesal noonu la chéré xoolal xaalis boobu budget boobu alors que ñooñu ñooy toogaat naan yoruñu crédit yoruñu xaalis yoruñu lii pour euh, commencer pour pour commencer jaay et tout ñoom la neex léegi ñooñu amoo loo leen conseil. Mhm. àdduna dina leen comme on dit comme ni comme récemment rek ñi nga xam ni dañuy jaay ay suppos ay ki mhm. yo xamni pour diw li la xoolal Nicki euh photo bi génn même récemment. même pas trois jours bo xamni ay fesam dañoo wacc léegi ñi ñi def opération te gis lool ñom na leen neex nag nañu waxante dëgg. c'est la même chose que xeesal. Mhm. pour jeune yi nga xamni aussi euh, dañuy euh te duñ liggéey je me dis que yëpp si yarin bi la. parce que man. sama papa mooy sama idole sama papa dama daan toog billaay ba ma nekkee xale su ma daan gis téléphone am di sonné di sonné dama naan su ma màggee yaa sama genre sama télé sama téléphone pap à chaque fois ni ñu koy wooyee dimanche mënoo toog ba nii. Mm-hmm. mënoo toog ak sam pap une journée ndax lan appel yu bëri liggéey bi fu mu toll téléphone am du ma sa doon silencieux. doo ko ma sa woo jotu ko xanaa muy euh, julli wala muy jàng kaamin te su paree liste par liste lay topp di woote. Mm-hmm. léegi je me dis que lépp éducation de base la yow nga kii nga nga lii ñu lay defaral lépp. ba pare santuñ la dara loolu mooy problème yow soo amul jom dëgg am am am benn kii benn xadar bu nekk ci yow mhm. doo génn ci li nga nekk day yomb torop lii bu yomb boobu tëdd muy dox xam nga toog muy dox comme ni ñu comme on dit mhm. su yombee si yow nga am accessibilité di ko def mhm. moom ngay continuer mais soo génnee ci bi te régime bi nii ni mu changé nii ah toog muy dox day jeex de waaw ah, kay ayca toog muy dox daa jeex nee nañ doom bu jigéen jàngaaniwul nday jaay rayukaayam comme ni nga ko waxee éducation de base dafa am solo moo tax kenn ku nekk rek war nga ci looy dugg nga xool fi nga jóge xool fi nga bàyyeekoo xool fi nga bokk ndax nag waajur yi dañoo sonn loolu ñu war leen a bàyyi xel rawatina yaay yi nag yaay bi ci biir kër gi soo juree doom amagul yaay mbalit bi yaay dof bi yaay lépp mais nag yàlla am na lépp te yàlla gis na lépp yàlla rek a mën yàlla yàlla teg ñu loxo yaa ñu ngi lay ñaanal li nga bëgg li nga bëgg sa biir xol yaa ko xam waaye gën ci yow yàlla buur moo ko ko yàlla defal ci barki Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam projet yi nga am yaa xam li nga bëgg ci projet yi yàlla def lépp daal di réunir ah yàlla defal la ci succès total ay ci li amoon ci ay waxtu ñëwoon fii ci Kër Massar nee naa leen côté case de tout petit ba ñëw sees nga xamante ne kii moo di Zoya Glam balaa may jug nag damay nuyu nga xamante ne kii mooy Zulum Zalam sama frère sama xarit maa ngi koy bëggee baax a baax waaye Serigne Touba Diouf Bamba lay bëggee baax a baax ma fi def rek sama rakk sama xarit di sama deret barki Serigne Touba Mbacke bëgg ma te bëggantuuma Mouhamed Faye tey daal may ma ne ma solal barki Serigne Touba Mbacke Mouhamed Faye merci may wax merci à Léemu Ndiaye sama xarit séri Papa Gora di bëggee ñëpp di bëggee aussi élèves nga xam ne ñoom laa fekk fi nga xamante ne mooy ci salon parce que teeru nañu teral nañu tatagal nañu ah moo nañoo ñëw ngeen ñàngal parce que dëgg neexul nag mais danoo ñëw ngeen firi kanam daal di beneen émission ci biir yoonu Ndam TV Talla maa ngi lay bëggee baax a baax sama DG bu ñaawal bi nga xam ne yaa dooleel yaa ma kàttanal yow dëgg neexul daal ak ki nga àndal sama chéri boobu noon ci wet gi Daddy chéri yow mention spéciale à toi yaa dégg la wax ne yaay sama garde corps mi ni na yàlla mooy sama garde mooy sama coach mooy sama ménagère mooy sama lépp ay Zoya yow koy tàggoo koy ñaanal ak koy bàyyi <laughs> Euh, maa ngi lay sant di la gërëm ak ndax déplacement yombut mm-hmm. ànd ak say sa équipe ànd ak say caméraman ànd ak lépp woo ma ne ma Joya yow laa bëgg dalal par la biais de ton frère Papa Faye maa ngi koy euh, jaajëfal mm-hmm. bu baax euh, nuyoo bi nag dama koy jox sam papa ndax Euh, peccum liir bu euh, neexee nday jaa sa mbagg mais bii bàyyi baa téye sa mbagg ma parce que lépp moom la te mm-hmm. yéene bi ma am ci man ci moom mm-hmm. man ak samay frère macha allah euh, yàlla nañ ko yàlla mu eggali mottali ko ba mu fekkee lépp incha allah Euh, man sama papa mënuma kaa xool ci biir bët yàlla xam na ko ma su ma ko wax fenn mënuma ko xool ci biir bët mm-hmm. yàlla xam sama yéene ci moom yàlla na ko yàlla may gudd fan wéral cëri ah yàggal taxawaay bi mu jox ko ay soxnaam sama ñoom yaay macha allah euh, di leen sant di leen gërëm waa kër gi samay rak samay mag mm-hmm. parce que sama premier équipe ñoom la temps yi may def sama aar yaax yow yëpp ñoom ñoo nekk entreprise familiale ñoom laa dëkkee mhm. ñooy sama équipe mhm. après sama deuxième famille sama élèves yi sama doom yi mhm. ah awa di seen mag macha allah di sama assistante première assistante te ci astu garmi maa ngi koy ñaanal wér euh, euh, tulaay ah sama caat boobu macha allah ak ñeneen ñi ñëw wax yëpp ah maa ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm ak sama caatu salon maam aram <laughs> maa leen nuyu bu baax a baax a baax euh, di leen gërëm di leen Euh, di di kontaan ci dalal bi ngeen ma dalal mm-hmm. euh, sa poste bi macha di yàlla la ci yàlla may lu sut say sa njort ya ah ba ñu lay dégg feneen ak feneen incha allah parce que xol xol bu rafet mooy liggéey te sa xol rafet na te xol bu rafet day feeñ ci kanam macha allah euh, te souriante mm-hmm. euh, baax oyfal sa bopp jëloo dara euh, ngir dara mm-hmm. yal na la yàlla yëkkati yal na la yàlla li ya nga bëgg sa xol mm-hmm. yal na la ko yàlla defal yow ak sa borom kër yàlla bàyyi leen fi ba ngeen seen njaboot ngeen dégg leen fu sori sori sori macha allah mu nekk sa wet ah yàlla xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal yàlla na la ko yàlla <laughs> billaay wallaay amutuma lu ma xam nga man yàlla moo def damaa gaaw a jooy sama xol daa gaaw a fees waaye yow li nga ma ñaanal maa ngi la koy delloo ci barki Seydina Mohamed su fekkee am naa tuuti ci Seydina Mohamed balaa ñu fi ñëwaat déwén yàlla nañ la fekk sa biir école barki alxuraanu karim nga étage ko fii salon ñu ne fii tailleur yi ñoo fa nekk ci barki Seydina Mohamed la yàlla moo ñu boole mu fay gémmiñ bi am barke yàlla rek moo ko xam yàlla miy barke liggéey yàlla yàlla barke sa liggéey li ngay yóotu yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal yàlla may la góor bu la no mel ni sama dadi ma nobee dëgg neexul ay ca sama gaay neex na